taalif ak jël la am ku doon laajte faali ngoya ngi ma ne bésu tur borom bu mag combat bu am solo komba bu ñettoo xaarangoog a jàppante nañu dañoo ndenge ñante ñi ngay dem si côté saaku yi ñoo ngay dem ñi ngay dem ñi ngay dem ah ah waaye xoolama lii bërëb am solo ngoog ñaari ñii kenn du ñoom si mim réew nee naa la kenn dootu leen présenté ndenge ñante nen taxaw neen ne tekk tekkaaral taxaw neen ne tekk tekkaaral ku nekk yaa ngi xoor ban stratégie ngay def pour daan sa morom a ah, jël na ko ma ne ko attention jël na tànk oh, na ko ma ne baat na ko ah waaye xool ma supporter yi topp si kawam rek ah, ay xool supporter yaa ngoog ñoo leen di dàq ñi ngay dem ñi ngay dem côté saaku yi ah jëral ma waxtu bu jotee nga xam ne waxkat yay wax tëggkat yi di tëgg déglukat yi di déglu seetaankat yi di seetaan ma mbir mi neex na lamb ji amul fenn fii rek lay xewee Kabir TV laa ilaha illallah jàpp na ko ñu ngay xooloo la la la ah bay war a tànk bi jëloon tànk bi sànq seqi na ko wéeral na ah tekk mbir ba waaye daal nay bàyyi tànk ba ma ne combat bi neex na combat bi neex na am na solo ba léegi ñu ngay dem ñoo ngay dem jëlal ma lii ay waay ñi dina yegi saako yi de yéen kii ko rey di jàpp eh jàppal kii yow dina ko rey laa ilaha illallah attention mu ngay dem jël na tànk ba ñu xool nu may dem ndax na ko daanam déet oh oh ah waay waay ma ne doole doxul jàmm doole doxul jàmm may toppal fii yow toppal fii ngay dàq toppal fii jël ko jël na ko jël na ko jël na ko ay ilaha illallah combat bi c'est le combat de choc combat de l'année ngoog ma ne moo dàq si combat yi ñoom ñaar yàgg nañoo lalante di tëkk wante si ay face à face ma ne tey la dëj dëpp gaa ngoog lépp ñëpp gaa ngoog phase finale baa ngoog fii si mane lii mane ne neex du dàq du romb neex waaye dëgg yi du romb yi nopp wéerante leen ñu xool fan lay mujjee bëtam wànnente fan lay mujjee gëtam attention attention ah ilaha illallah la ilaha illallah ñi ngay dem côté saako yi côté saako yaa ngoog oh la ilaha illallah ma ne combat bu réeree ngoog combat bu neex combat de soq nee naa la ba ñuy def face à face ku ne li nga waxoon daal nga koy accomplir ma ne ñuy dagg seen ticket ma kontaan nañu lii la combat di lii la combat di ñi nga xool attention oh là là la ilaha illallah teq na ko teku mbir oh, oh ah waay jàpp na kii bàyyi na ko waay arbitre waroon atte arbitre waroon atte